jox na ko ab oto mu maye ko Moustapha Yacine jox na ko si Mountakha oto 80 millions mu maye kon oto bii bu ko Wally Seck indilee sëriñ bi sëriñ bi jël sëñ Mamor Mbacke mi nga xam ne moom moo ko yor taxaw moom li nekk ci moom mu def ko ci moom may ko oto bi ku mu war a may oto bi la moo tax loola ñu ngi ciy sant Wally Seck bu baax a baax di ci gërëm bu baax a baax la ma koy xamal nag mooy la sëñ Abdoulaye waxoon te jóge Kébé daan ne li mu yor xaw ma fu mu ko jëlee waaye fii mu koy dugal xam nañ ko moom mooy ci liggéeyu sëñ Tuubaa bi tey tey Wally Seck boo gisee oto bi mu mu wut ko indil ko indil sëriñ bi lenn ci njabootu sëriñ bi ñoo demoon doon waxaale oto bi ngir wutal ko sëñ Muntaxa Wally Seck xam ne sëñ bi yitte woon ko mu ci pas-pasam mu dem jëndal ko sëriñ bi sëriñ bi sëriñ soxla gu mu ko soxla moo tax mu jox ko taalibe boo xam ne ab doomam la ba noppi di sëtam mu jox ko ci biir kër gi kon oto baa ci kër gi ba tey kon loolu nga xam ne euh, addee sëñ bi nangu na ko sëñ bi fonk na ko lool ñu ngi la ci ñaanal yàlla bu baax a baax suñu borom defal la tawfeex te saa barkeel la fi nga bëgg a yegg yaa ko xam na dafa sëñ Tuubaa yeggal lii nga def ngir sëñ Tuubaa dana benn sëñ Tuubaa nangu na ko waaw ñu ngi lay ñaanoo bu baax a baax di sant mbooloom ñëpp di gërëm tali bi yëpp te xam ne daal addee ji Wally Seck indi sëriñ bi lu neex sëriñ bi la ndax addee ji bi ko sëñ Muntaxa oto bi bi mu ko jox sëñ Mamour dafa woo ay kilifa bañ toog sëñ Mamour toog mu boole ko ci ko ci gërëm waaw xaw na ko làq na ngërëmal sëriñ Touba ji mu doon ji mu doon wut ci moom te sant naa ko gërëm naa ko jël addee addee jox ko ko xanaa ngërëmal sëriñ Touba moo gën a dis àdduna ak lati bi te add te ngërëmal sëriñ Touba la ko sëñ Muntaxa defal ba noppi jël addi jël addi ji bo bo bo boole ko ci ah kon kay lu waaye santal yàlla bu baax te xam ne addi ji dañ ko jébbale ngërëmal Sëriñ Tuubaa la àndal kon jërëjëf Aliou